ak di jéem a gërëyee gërëyeelu comme ci ñenn ñiñ ko gisee xoolal Ousmane Sonko ak gone gile turandoowam la waaye xale bi mbégte gi muy wane ci kanamam mooy mbégte mi nga xam ne mag ñi sax moom la ñu am ci seen biir xool la ndax kii di Ousmane Sonko dafa ñëw am lu bees lu mu indi ci réewum Sénégal jamono ji bés bu yàlla sàkk ñëpp moom la ñuy waxtaanee ndax Sénégal gi mu soppi Sénégal gi mu révolutionné ñi démissionné woon ñëpp ci mbirum politique dellu siwaat nañ loolu di wane tey dëggal ne il a fait un travail extraordinaire ba waral réewum jamono ñëpp dal di ciy dikkaat réussite bi nga xam ne nag moom Ousmane Sonko am na ko bu dul woon suñu borom du mës a antu du mës a sotti waaw dëgg ndax suñu borom moo ko ko defal moo ko ko jagleel bu ko xoon jaarale ko ci beneen jaam fii ci réew mi te bu boobaa niñ toppee Ousmane Sonko noone lañu koy toppee muy wane tey dëggal ne suñu borom moomule boo ko nangulul la boo deful attention ci ay jafe-jafe ngay dëkk mais surtout nag bu fekkente ne yow da ngay jéem a gàllankoor moom aw booy tuwul yow la ñuy effacer ndogal li dal di wëy ni seen xëy ak seen gontu yëpp dañu ko jagleel Ousmane Sonko depuis ay at ngir fexe koo faagaagal waaye suñu boroom ne deet loole du fi am waa jilee maa ko yëkkati maa ko bëgg loo sénégalais yi kon maa koy aar maa koy sàmm tey jile mooy le premier ministre du Sénégal ay weer ci ginnaaw kenn yaakaaru ko woon kenn fogu ko woon ndax njort bi ñu amoon mooy Macky Sall ak nitam dinañu def seen kéemtalaay kattan ba moom Ousmane Sonko doonoon candidat waaye itam Pastef kenn du ci bokk ñoom ñu seen i pexe dara mujj Ousmane Sonko fal na Bassirou Diomaye Diakhar Faye gannaaw suñu borom mu doon le président de la République du Sénégal mu ngi nii tey jëlee lenn lay sàkku ci askanu Sénégal mooy ñu jox ko majorité à l'Assemblée nationale bu doon pexe noonu dafay mën dara ci jàmm fekk ne suñu borom bëgg ko konoon Ousmane Sonko tey jëlee fi mu toll kenn doonu ko fi gis waaye heureusement la ñu doon xeex ñun askan wi yëpp am na ñu ci ndam ndax aw askan dafa am fu muy toll foo xam ni suñu borom day am kum fay yabal ngir mu mission bu mu fa dox soppi lu bëree bëri ci mission la nekk moo waral kaful réewul ci li muy def fulaak fayda gu mat sëkk la àndal ci bépp stratégie boo xam ne mi ngi koy utiliser ngir lépp mën a antu waaye itam tegu ci yoon yéeneem ak mébétam ñëpp xam nañu ko mooy Sénégal gu baax Sénégal gu soppeeku Sénégal dootul am kumba am ndey ak kumba amul ndey Sénégal boo xam ne lépp day tëddee njaaxaanaay Sénégal bu naat bu prospère Sénégal goo xam ne ndaw ñi dootuñu mbëkki daw di uti lu ñu am fii ci seen réew la ñu leen di mettre dans de très bonnes conditions ba lépp lu ñuy yóotu ñu mën cee jot Sénégal mooy réew mu am stabilité réew mu moom boppam lool moo tax ñu gëm ko gëm projet bi topp ci di ko accompagner ngir ay at ci kanam ndam lu rëy ñu mën koo am soppite ñu gis ko ci réewum Sénégal yaakaar googu nag moom la ñuy ñaan suñu borom mu sàmmal ñu ko ba du ma sa tas am nañu ci yaakaar ndax gis nañ doxalin bi jamono ji nekk na lu mucc ayib bien vrai que nag mënul ñàkk ay jafe waaye tey la ñu gën a gëm projet bi fas yéene ko accompagner fii ay at nag ñu mën a juger évaluer daal di xam nag dëggantaan ana lan lañ fi jot jot a liggéey kon nag ñoo ko gisandoo jamono ji Ousmane Sonko mi ngi ci campagne bu métti lool ndax fas yéene naa dem ci référentiel Sénégal 2050 pôle ñu fa tudd yëpp ngir waxtaan ak askan wa fa dëkk xamal leen dëggantaan lan mooy seen yéene ci réew mi yéene googu nag ngir mu mën a yegg faw comme ni ñu koy fàttalee nekk ñu def focus ci élection législative yi ngir ndam lu ñu mën koo am bésub novembre loolu lu mën a nekk la te nag mënuñoo jox weesu ñëwaat ba le 17 novembre bëgg jël lépp di ko tegaat ci loxoy système bi alors que ñun ñoo dañoo nekk ay anti système jamono ji ndax ko ànd ak Sonko loolu dong nga mën a kon gars nañu voté ji massivement jox Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président de la République du Sénégal et le PM Ousmane Sonko majorité écrasante ca biir pencum ndawi réew ma ngir ñu bàyyi leen nag ñu liggéey ñu doxal la bu ko defee changement yi ñuy séntu ci réewum Sénégal fi ak ay at ñu mën cee teg gëta te ba itam ñoom comme niñ ko waxee ñu mën leen a évaluer ñu xam ndax dañ leen di jox second mandat ngir ñu wëyal la loolu nag amuñu ci benn sikki sàkkane askanu Sénégal dinañ renouveler seen confiance jëmale ko ci le tandem Diomaye Sonko AGT News